lii doyati na waar mbokki internet yi chambre criminelle bu Dakar leen jëm foofu dossier bu tàng jër leen fa fekk démb benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom benn moom lañ doon àtte ndax daa bëggoon a posone benn maire buñ ko joxoon loolu nag tax na ba xale bi mbokki internet yi dëkkul ak papaam ak yaayam ndax papa ji déplacement yu bari lay def ci biir réew mi maanaam nekkul kuy toog yaayam itam mu nga ca Mauritanie yàgg fa loolu xale bi mi ngi wuyee ci turu M Daari moom nag maamam lañ ko jox mu yar ko ca caaro yi waaye loola yàggu fa ndax ba mu nekkee ca maamam ay weer wala ay at yu néew rek la fa def ñu pàppaam jële ko fa daal di koy yóbbu ci benn cousinam cousine ba nag moo dem porter plainte xale bi ndax daal lekk ab Euh, ñam boo xam ni daal posen lañ ci duy nee na xale bi bëggoon koo posone xale bi bi mu ñëwee ci kër gi tutrisam bi maanaam njaatige biñ ko jox njaatige bi daal koy yëkkati ca kaw ba muy dóori ñëw jàppe ko comme doomam wëlbatiku dikk ko ab tukki ni ko dinaa la yóbbu France bu sa formation bi ngay def jeexee liñ la sant mooy jàngal xale bi comme mineur la mu daal di jël tukki bi def ci xelam respecté njàng mi di teel a jug di dem di jàng di wàcc bi mu demee nag ba nga xam ni ma ngay jàng ndaw sin ko jox xam ne lii mënta wéy ndax da ko doon nax xam naa tala nag seetlu ni xale bi daal wax dëgg am na pastéef loolu ci njàng mi mu ngi dem école di ñëw léegi naa dugal ab galgal nan la soxna si def dafay woo xale bi ci biir kuuram yooyu muy suivre naan ko ñëwal ci kër gi togg si añ ñëwal ci kër gi fobeere si ñëwal ci kër gi raxas duus si loolu nag xale bi commencé xelam di teey ndax dafa jàpp ni moom ba muy ñëw ca kër ga mu toog ci saal bi ak ndaw si ndaw si ni ko lenn lan sant am njàng bis boo jàngee ba sa formation bi jeex naa la yóbbu France wërta mën a wëlbatiku di ko jox ay travaux domestiques yoo xam ne ci kër gi la koy gérer xale bi bañ xale bi mu ko koy def xale bi bu jàngee ba ci digg bi rek mu woo ko mu jugee école dagg njàng ma léeg-léeg sax amaana yenn devoir yeeg yenn examen yi sax xale bi da koy raté ndax topp waawam comme bàyyam moo ko fa yóbbu joxe ko xañ ko maamam ndax li ndeyam dem Mauritanie moom itam toogut mu jàpp ni xëy na tutrisam bi dina éduquer xale bi ndekete yoo tutris ba day profito njaatige ba ci xale bi ngir fas yéene koo exploité ci biir këram moom bu daan togg mu téye loxoom fobeere mu téye loxoom xale bi bi mu demee ba nga xam ni nag sonn na mënatut a concentré wu ndax début ba ma nga doon jàng vraiment doon ñëw di jàng di def effort ñu jekki-jekki ñu koy dugalal leneen ca la xale bu fippu xale ba fippu ba mer ba mu meree nag ca la coow la tàmbali saa suñ ko sante la lëggee mu bañ benn bis xale bi togg soxna sa lekk ca ni dañ koo posone dem di yéeg ak wàcc bay mujjee ci ca chambre criminelle bu Dakar hors classe ci bànqaas boobu xale bi moom dañ ko indi ngir nag mu tontu tuuma yi tàntaam ji gàcc ci kawam ni daal da ko doon posone tànt ji xale bi weddi ay waxam xale bi nee na moom ñeenti weer la dëkk ak tànt ji ndax maamam a ko yaroon ca caaro yi ñeenti weer yi nee na bi mu dëkkee ak tàntam gis na ni tànt ji doom ji xale la doom ji góor la am juróom-ñetti at la am gune la waaye nee na mësta am xalaat ci togg di ci dugal lu bon ba di leen posone loolu la xale bi leeral ci kanamu àttekat yi juge bi nag ni enquête préliminaire bi xale bi dafa avoué woon ni dafa sotti eau de javel ci togg gi ñu ko doon togguloo ngir mën a posone tantam jilee xale bi mer ba fut ni leen ca gendarmerie bu Ngor fan ma njëkk a convoqué laaj nan ma laaj bile waaye dama ni leen wax dëgg nee laaj laajuñu ma laaj bi waaye dañ ma laaj sama identité yow yaay kan nee na loolu lan ma laaj nee na nag tantam ak cousinam bii ñoom lañu déglu ban leen dégloo itam gendarme yi ñëw nañu ci kër gi gis euh, jàpp ni euh, daal am na eau de javel bu ñu dugal dugal ci lekk gi nga xam ne ñun ñëpp lekk nañ ko xale bi wëlbatiku ni bis boobu day moom tàntaam def ni ko demal toog gi lekk gi nee na mu ni ko sama biir day mitti nee na nag tànt ji moom moo mujj togg bis boobu mook doomam ñu ngi woon ci néegam toog di waxtaan kon nag moom amul benn yoon boo xam ni rek li nga xam ni moom lañ ko koy tuumaal moo ko dem nee na li ci gën a grave mooy saa su ma demee di jàngi daf may woo pour ma ñëw raxas fobeere su ma paree eh, raxasaat ndab yi niy lekke door a dem école léeg-léeg sax mu jox ma am fóot nee def na ko ñetti yoon yoo xam ni saa su ko defee damay fippoog moom di xulloog moom ndax dama ñëw pour jàng ñëwuma pour nekk mbinduwaanam loolu xale bi xamle ci tribunal bi soxna si nag moom ni enquêteurs yi xale bi da ko doon posone ndax daal la mu def ci lekk gi daf leen a jàpp loolu jural leen musiba waaye parquet moom ak dossier yi mu am yépp ñoom li ñu jàpp daal mooy est-ce que réellement ndaw si moom moo def eau de bi ci lekk gi ñoom loolu leen jaaxal parce que comme ñoo ko lekkandoo ñoom ñëpp loolu itam doy na waar waaye ñoom ñu gis ni daal euh, euh, dossier bi moom wax dëgg nekk na dossier boo xam ne daal viddi la gën a jige waaw défense yi nga xam ne nag ñoom la mbokki xale bi jëloon ñoo ñu daal dan ni euh, tante ji da doon jéem a tendre pièce pour gàkkal deru xale bi ndax li mu tuumaal xale bi moom tante ji kun naan maître Dramé moo ko wax nee na tutrice bi dafa bëggoon a jël xale bi daal di koy def mbinduwaan mu nekk nag situation boo xam ne xale bi nanguwu ko benn yoon loolu nag moo jur xëy na lii bi ñu plaider nag pour xale bi ñu bako avocat défense yi itam sàkku nañ ci xale bi am liberté provisoire am ndax lii ñu koy jiñ kat nekkul loo xam ne laale na ci débat d'audience ba mu jeexee mbokki internet yi ak fee niñ ko nittilee ñu déglu ñaari camp yépp chambre criminelle daal dinay ordonné xale bi ngir mu am liberté provisoire kon nag xale bi yeewi nañ ko dossier bi sax démb ñaari fan ci weeru juillet ci leen ko daal di vidé kon mënees naa jàpp ni xale bi moom bile dossier ñu ko doon tudd te tantaam ji ñu ko mujjee jox ni da ko doon posene dossier boobu vidé nañ ko vidé nañ ko xale bi génn na ca kaso ba ba dellu ci ay activité am tante ji nag lam ko diggoon yépp daal dinay naax saay mbokk yi fee baa ngi nii ay ca ñu jàngat ko liñ ci njëkk a jàngat mooy lii nag mooy erreur dëgg dëgg dëgg ci sens de responsabilité bi may faral di wax ci parents yi mënoo jur sa doom muy jigéen yaayam non seulement ma nga Mauritanie ñëwatut papaam toogut nga jël sa doom nangu ko ci maamam parce que jàpp nga ne bu nekkee ci maamam du jàng ngi jële ko caaro yi jox ko koo xam ni sa cousine la kooko jàppe ko comme mbinduwaan ni naa profito la ma doon fay ab ab euh, femme buy def wàllu ménage naa ko exploité xale bi mais naa ko nax comme dafa ñëw pour jàng ma dik ko tukki France loolu la soxna si def xale bi gëm tukki bi ñu dem ba ci biir malheureusement loolu di jaas kon xale bi mën naa ne ay mbokkam am na déception ci seen cousine bi ndax ba ñuy jël seen doom di ko jox seen cousine danoo foogoon ni dinañ ko jàngal dinañ ko éduquer ba formation ba muy def mu daal di ko fay jëlee xëy na sax liggéeyu jigéen mënta ñàkk ci xale bu ndaw waaye nga def ko lu mel ni ay samedi dimanche jàngal ko togg orienté ko jàngal ko liggéeyu kër waaye boo bëggee jël xale su ndaw 16 ans mu nekk mineur nga jël liggéeyu kër entier yan ko ko kooku yaa ngi koy exploité kooku jàppewu ko comme njaboot kooku bàyyam bi ñëw jox la ko yow responsabilité bi mu amoon ci yow ak yaakaar yaakaar googu yow yaa ngi koy yàqi ngir say intérêt kon soxna si li mu def moom itam rëy na te ñaaw na te doy na waar ndax buñ la jox dénkee doomi jàmbur nanga nga war a def mooy sàmm ko iir ko ba ëllëg doo am gàcce ci ay digganteem ak ay waajuram te soxna si li mu def loolu nduru na ko beneen bi ci des mbokk internet mooy day waral rekk ni pour nga jël sa doom di ko joxe itam erreur monumentale mënu koo wees ndax saa soo ko joxee laaj na nga koy contrôler ci loxo yamu ne yan xeetu loxo la ak nan lay dundee ak nan lay nekkee loolu lu ama am solo la fi nga xamee ni nag fi la ñuy daanale mbokk internet yi nii àndal ci suñu rubrique fait divers yi maam mooy xale bi xale la ci ay at waaye nekkul xale ci am xel ndax bi mu demee ba temps de détecter piège bi ko tantam ji doon teg ak lim ko dig yépp mu rêvé ko mu dem ba biir école commencé formation mu koy def pour mu raxas yi ndab pour mu togg xale bi dem ba détecter piège boobu xam na ni kon euh, tantam jile intérêt moo taxoon tey mu nangu mu ñëw ci këram waaye ñëwul pour éduquer ko wala mu koy encadrer ba jox ko ay valeur yoo xam ne jigéen mën na ko am après sa formation loolu itam mu nekk beneen déception boo xam ni mbokki gune gi am nañu ko par rapport ak fee bi euh, li nga xam ne nag moo doy waar mooy képp koo xam ne rek am nga sa doom day ko contrôler boo ko joxee xam ni muy nekkee ndax jamono yee kat indi nañ leen fi benn mbir bu mel nii xale su ndaw moom it ca ngaay meexee ñu jox ko ak soxna mu war faa liggéey soxna bi jël ko di ko exploité ba jëlu kuur yenn ko ko mu sedd te yooyu yépp parents yi parfois bëgg lu yomb parfois bëgg ku leen yoreel seeni doom parfois itam topp seen bakkan di wër di taxawal lu ci réew mi wala ci àdduna bi bàyyi seen njaboot ginnaaw xamuñu lu nekkee xamuñu ci yenn loxo la nekk yooyu c'est des erreurs monumentales mbokk yi continuer leen di abonné di partager di emee ak di commenter suñuy vidéo ci suñuy plateforme bu ko defee saa suñu ñëwee man di leen indi seen rubrique fait yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal kendalu jàmm di ko sàkku ci yéen di leen jox rendez-vous ëllëg ak seen yeneen rubrique fait divers ci suñuy plateforme jër ngeen jëf ñu yendu ak jàmm